koy bañ kottu na mu bañ ba léegi ndeysaan booy fay ak suura mu ngi koy songale wëndeel mu bañ mu jaxabal mu jéggi loolu ee eh, du yomb du yomb suura ak booy fay arbi dafa sifle ñu ne ñaar kottaat na ko kottu kalum biti suura bañ supporter yi jóg nañu ndeysaan xale yaa ngay Boy Faye ak Soura fa ñu jàppante ca booru saako ya songale caxabal mu bañ woyale mu remplacé plaqué ko mu ngay door moom Soura Soura ak Boy Faye ñaari xale yaa ngay bëree lambi xale la xeexuñu dañoo daw jàppante runkum daje arbitre boo poussé ñu caxa ngay biiñ aca caxabal na ko sura caxabal na Boy Faye daal koy daan ndeysaan cey loolu déggal la muy def nee leen am leen ñi bañ mu jël ko jox ko ña ca des moom suura mbaru waane ma ngay njàpp nee na leen ma indeem déet Baye ma Ndiaye daw na jëli ko ñoom ñaar ña ngay foo attention Soura ak Boy Faye eh Soura Ma Ndiaye Seydou Fall daw na jël ko waa mais su mbaru waane ma ngay nee na leen ma indeem déet Baye Ma Ndiaye daw na jëli ko ñoom ñaar ña ngay foo attention Soura ak Boy Faye eh Soura Ma Ndiaye Serou Fall daw na jël ko waa mais su waa dem na ca adversaire ba ndeysaan macha allah waa loolu